saar wi nekk téeméeri laaya ak ñaar fukk ak ñaar wala téeméeri aaya ak ñaar fukk ak ñett loolu la saar wi làmb ci ay aaya aayaat yi noonu la toll saar wi junni baat la ak juróom benn téeméer mille six ay baat la baati boo ko doon wàññi da nga am junniy baat ak juróom benn téeméer loolu moo nekk ci saar wi ci ay baat saar wi boo ko xoolee am na juróom ñeenti junni xaraf ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar loolu moo ci nekk ci ay xaraf neuf mille cinq cent soixante-sept xaraf moo nekk ci saar di saar woo xam ni dafa lépp loo xam ni euh, Yunus mbëbëstaloon na ko dafay continuer di ko leer noo bokk rythme bu ñuy doxe mook suuratu Yunus dana ci wax xisa yonent yi Yani yi lenn ci ay xisa dana ko ci netti dana ci wax walu tawhid ni ñu wara wétal yalla dana ci ñaax ñi baña wétal yalla ak yeneen ak yeneen yo xamni manam dal ni yunus doon doxé dal non lay a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra lam raya yalla mo xam lu mu ci namu de waye mu ni li nu tim di jang di alquran kitabun ab tere la bo xam ni uxkimat xere nyefna ayatuhu ay layam ni ñu ko nosé xereñ na lay ni ñu ko nosé xereñ na ak xereñ a ngi ci dégg gi yéme na maanaay xóot na waaye nag xóot gi nga xam ne alxuraan xóot na ko bu dul woon xereñe gu ñu xereñi laaye yi kon kenn du mën a dégg ci moom dara waaye nag yàlla amul benn sens muy wax ak nit ñi ba pare di wax ak ñoom ci terme bu ñu déggul déedéet waaye nag waxam ni mu toll par rapport ak ñun dafay diis waaye nag xereñe xamoon na ko ni su waxee moom ni mu toll su waxee noona ak ñun ni mu toll moom duñ ko mën a dégg moo tax alquran li muy diis diis yàlla da ko waxe nu tolloo ak suñu dégg dégg gi nag giñ ciy dégg ñun sunu wàll lañ ciy dégg mais bàyyikoo gi mu bàyyikoo fi moom tax na lu mu tolloog suñu dégg lépp du tax daan dana tax du tax nu mën a dégg lépp ndax bayiko gi gim ci yalla fi nga ci yam ni li la koy xamal tay li ñu tafsir lepp bu la neexun suwa nga wat ko indi benen tafsir melna na du sax bi nga doon wax mu jeex bu la neexé nga indi wat benen tafsir mu melna na du ñaari wess bu la neexee nga wat benen tafsir mu melna na du ñett yi wess jëm kaw en pa ki day tafsir jaar fi ki tafsir jaar fi ñom ñepp nak ñu bokk lu ñuy wax waaye bokkuñu nu nuy waxe ñoo bokk lu nuy wax waaye bokkuñu nu nuy waxe li ñuy wax waxuñu ko moo tax ñoo koy bokkale muy alquran yàllaa ko wax moo tax ñoo bokk lu ñuy wax waaye ñiy wax bokkul dégg yi bokkul léeg-léeg da koy déglu ca kee mu yomb lool ba nga daan kii xanaa day caaxaan léeg-léeg nga déglu ko ca kee mu jafe lool ba nga naan kii moom fi mu ëw oh, kii fi mu yéege moom dëpp na fekk na waxin yi ñoo bokkul waaye li ñuy wax lenn la ndax ki ko wax kenn la ñim ko waxal ñenn lañ waaye nag yàlla xereñe na ko bañ mañ koo dégg su ma fosi la topp mu faramfàcce ci biir faramfàcce na ci atte yi ba mu leer faramfàcce na ci xisa yi faram na ci waare yi faram fàcce na ci dige yi faram na ci xuppe yi lépp faram fàcce na ko ci min la dun xakimin alquran nag jóge ci ku xereñ xabiirin ku dañ kumpa lool te mooy sunu borom li muy jëkka nettali wax ci saari nag bokk na ci mu ni an mooy ala taabudoo an la taabudoo an mooy ala taabudoo ngeen bañ a jaamu ngeen bañ a wéetal illallah ku dul yàlla yàlla moo ni bu leen wéetal kenn ku dul yàlla bu leen wéetal kenn ku dul yàlla inna ni naka ma ni yonent bi mooy wax min la dun xakimin xabir yàlla la waaye liñ ci wax yàlla yonent bi moo ni alaa taabudoo illa allah bu leen wéetal ku dul yàlla yàllaa ko wax mu wax ko mu ni inna nii naka man nag nasiirun xuppekat laa ci ñu weddi yàlla ca safara wa bashirun béglekoon laa ca àjjana ci ñu gëm yàlla làkkum ñeel leen minhu ci alxuraan wa ba tey bokk na ci la muy digle anistaxfiroo mooy ngeen jéggulu a yéen bàkkaaru kon ñépp ay jéggulu benn waaye dañuy man day awma bàkkaar dañ ne kan moo amul bàkkaar mu ne man awma bàkkaar ma ne ko wax gi nga wax ne amoo bàkkaar ak jàpp gi nga jàpp ne amoo bàkkaar doy na la bàkkaar waan istaxfiroo ba tey bokk na ci li ñuy digle ngeen jéggulu jéggulu leen rabbakum seen borom loolu la yàlla wax jéggalu leen seen boroom ci bokkaale ngeen koy bokkaale su ma tuuboo ngeen dellu ilayhi ci topp yàlla su ngeen tuubee seen bàkkaar dellu ci topp yàlla yu mattiakum dana leen xéewalal ci àddina mataan ab xéewal xasanan bu neex lool bu rafet lool te mooy dund gu neex ak wërsëg bu bare kon mi ngi noonu bu ngeen jégguloo seeni bokk seeni bàkkaar tuub dellu ci yàlla yàlla dina leen jox dund gu neex dund gu nëtëx dund gu baax ngeen di ko dund nag ilaa ajalin jëmub dig musamman bu di bu ñu tudd ba maanaam ba faatu di ñëw da ngeen dund dund gu neex ba ba faatu di ñëw wayuuti ta dana leen jox bu àllaaxiraa mom yalla dana leen fay kulla si fadlin kep ku doon borom jëf ju baax yalla dina ko fay fadlahu payam googee te mooy jëfam ju baax jooje dana leen jox xéewal ci àddina te bu àllaaxiraa itam li ngeen doon def ci lu baax lépp dana leen ko fay wa inta ndeem nag yéen da ngeen a dëddu yeneen bi mooy wax ak gaañ ci kat ndigalu sunu borom man wa inta ndeem yéen ñii ñuy woo ci gëm yàlla da ngeen a dëddu fa inni na kaman yonente bi axaafu ragal naa aleykum ci yéen asaaba yawmin mbugalu bis kabirin bu magul bu rëy lol ta moy yawmal qiyam te itam na ngeen xamni ni sen delu way seenu mucc illallaahi jëm na ci yalla lu ngeen meuna def ci lu bax yow mi def lu bax xamal ni ci yalla rek ngay mujj yow miy def safan ba ci yalla rek ngay mujj yow miy wax lu bax ci yalla ngay mujj yow mi wax lu bon safan ba ci yalla ngay mujj na la leer te ho mom yalla kat li ci gëna a khadirun aji man la aji atan la ala kulli shay'in ci lépp lu mën a doon diggante jox nit yool ba mu mat ak mbugal ko duma ko ba mu ni mbali loolu yom na suñu borom amna ñu ne ay ji li tax mu suñu daan jub yonente wala yonente bi di wax ak ñoom ay ay aaya day mel na dañ koy bañ a dégg di muuroo seen yéeréeg ak ñuy jub yonente bi di ko lem seenu loos di teggeeg yu demee noonu yàlla ne alaa ni yonente bi ni alaa dama ni innahum naka ñoom mushrikoona yi yasnuuna danan dañuy lem su dóoram seen dënn yi li yas tax foo ngir nañu sàkkoo nëbbu minu ci yàlla ak yonentam bi dañuy nëbbu yonente bi alaa dama ne xiina yas taax zoona waxtu wa nga xam ne ci lañu muuroo siyaabam seen yére bañ ku leen gis yaaxalamu yaalam booba fekk na xam na bu yàgg moom yàlla maa yu sirroona lañuy ñuy nëbbu wa maa yu linu ak la feeñal yàlla xam na la nëbbu ak la ñuy feeñal xam na ko xam na ko bu wér a wér yàlla xam na ko yaalamu maa yusirruuna wa maa yu'linuuna bu ne yàlla xam na li ngay nëbbu ak li nga feeñal xamal bu baax li ngay nëbbu ak li ngay feeñal rek yow comme loo mën a nëbbu xam na ko loo mën a feeñal xam na ko bii buur ku koy raw bii buur ku ko mën a raw bii buur ku ko mën a raw yàlla xam na li ngay nëbbu xam li ngay feeñal bii buur ku koy raw kenn mënu koo raw moo tax loo def rekk yàlla xam na ko loo wax rek xam na ko ndax innahu naka moom yàlla alimun xamaa kon la ku xam la bi zaati suduuri li ngeen denc ci seen biir xol yi yàlla loo denc ci sa xol xam na ko yàlla li nga wax ba pare li nga waxagul amul lu mu ciy gën a dégg li nga jëf ba pare ak li nga jëfagul amul lu mu ci gën a gis li nga xalaat ba pare ak li nga xalaatagul amul lu mu ci gën a xam lépp a yem fi moom yàlla lu weesoog lu dëgmal ci moom a yem ci moom lu weesu li jàll ba noppi ak li nga dëgmal lépp a yem ci moom amul lu muy gën a xam lii xamam gi dafa peeg lépp te xamam gi amul fu mu gën a féete ak fu mu manqué gën a découvrir lenn li ci des ñaar yi bii nga gën a découvrir bi nga gën a xam loolu ci jaam lay am ñoom dañuy découvrir yàlla nag moom amul lu muy gën a xam ak lu mu dul gën a xam amul lu weesu amul lu lu teew ci moom lépp mu ngi ci kanam mi ngi noonu wa ma min daabatin déet jenn aji yukkat juy dukkat déet jenn aji yukkat juy dukkat fil ci suufam sii illaa alallaahi ndaree bu warlu na moom yàlla risqoha wërsëgam wa illaa alallaahi risqoha illaa risqoha alallaahi képp kuy dox ci kaw suuf sa la ngay wërsëgoo mi ngi ci sunu borom benn nit yàlla dafa daan toog rek moom du wuti dara buñ ko nee lu tax yow doo wuti wërsëg ak yow mu ni dund ak ak xamak def ak dindeeg lépp wërsëg la te itam comme yàlla wërs euh, warlu na ko ba noppi du ma fekk lu yàlla warlu ma di ko wëri xam na lam la ma ci moom xam na fu mu nekk xam na fi ma ne na muy def ba mu ñëw xam na ko jéggal tolluwaayam kooku weesu na sabab dafa gëmam xam nga xam nga sabab dafa <laughs> li ma bëgg a wax mooy dafa am ñu dafa am ñoo xam ni ñàkk sababu musiba la ci ñoom am ñoo xam ni sabablu lu sabab lu mooy musiba ci ñoom ñoom noonu lañ ko jàpp seen tolluwaaya fa toll seen tolluwaay moo fa toll am na ñoo xam ne ñaan musiba la ci ñoom nga yàlla moo ni ñaan leen ma may may leen am na ñoo xam nee nañ ñaan ndax dee li tax yàlla sàkk leen ñoom te ñeewuñu yàlla ñaanuñu yàlla pour mu sàkk leen yàlla jox leenum xel ñuy màgg ba xàmmee amuñu woonum xel bay ñaan yàlla xel moom yàlla di leen jox xéewal yi mu leen di jox te xamuñu ko te xamuñu woon ni xéewal yooyu yàlla dana leen ko jox ba ñu toll foofu nee na loolu ñoom nee nañu loolu moo tax dootuñu dootuñu jekki deeti goree di ñoom goree di lañ ko jàpp naan yàlla may ma nàngam ndax nee na mi ngi mel na nga gënee jiitit ci misaal rek mu yëkkati ab saaku soble jox la sakup tandara mu jox la suker mu jox la te ñaanu ko ci dara nga jek ba yag nga ne ko waaw xana do dooma may ma may euh, euh, ñetti ñetti libari gerte xana do ma may mbote mi ma yóbbaale ko xolal lim la may ak li nga ñaan nit dong soko ko non mu jéppi la moo tax ñoom nee nañu comme loolu na foofu la yàlla nag def na loolu lépp amatul luñ koy ñaan te itam ñoom nekk weesu na ne ay baadu dootuñu ay ibaad ay obodiyatu la ñu doon dafa mooy kii jaamu yàlla ngir ragal safara mbaam di ko jaamu ngir bëgg àjjana ñu àgg foofa na ñoom jaamu gi ni jaamu yàlla seen yoon nekkatul ci àjjanaak safaraak tey ak ëllëg ak gannaaw seen yoon nekkul ci ñoom daal yàlla santaane na jaamu ngi dañ koy def ngir li ko yàlla santaane mais nag amul lu ñuy daw ndax nee nañu safara lu yàlla sàkk la àjjana lu yàlla sàkk la ñoom ñii di ko bëgg a ka bañ ñoom yàllaa leen sàkk seen yoon nekkul ci fa muy tànn di leen fa def ñoom fu mu leen def baax moo tax nit yàlla bi ni moom foofu la jaare rek ni daal comme yàlla moo war lu wërsëg ma ne ko wute nga ak ñin ñuy sikkar yaa rasaaxoog yaa mufiidoog yaa ya yaa kam nangam ak nangam nangam ndax wërsëg rek ndax wërsëg rek yàlla moo warlu wërsëg yëpp way alamu ta xam na mustaqarraha saxuwaayam ci àddina wa mustawdaaha ak kookee di yukkat yàlla xam na fa mu sax ci àddina fi mu fi nekk wa mustawdaa yàlla xam na fi ñu koy rob su faato milieu bi nga nekk yow mi ngi xam ne yaay dukkat ci kaw suuf yàlla ne na maa war lu sa wërsëg nga naan nooy def ba jot yàlla ne ne eh xam naa fi nga nekk même bi nga boo faatoo fi ñu lay rob xam naa ko ñii ni déedéet mustaqarraha wa mustawdaaha mooy yàlla commencé na xam maanaam sa dara wump ko même bi nga nekkee ci sa ndiggal bàyyi xam na ko avant nga ñëw sa wa mustawdaaha bi nga ñëwee ci sa njurug ndey xam na la kon foofa la la tàmbalee xam ba fii ci àddina ñu ni déedéet fa mu la tàmbulee xam mooy ba sa baay amagul ak sa ndey dara amagul yow booba la la xamoon yàlla mosul am jamono bu mu réeree kenn mosul am jamono bu mu fakk kenn bi nga amagul xam na la bi nga amee xam na la bi nga amatul xam na la fàtte du am ci moom kullun kumu don ak lu mu doon fi kitabin ma nga nek ci terem mu binin ba aji bir moy lawul mahfuz wa huwa mom yalla allazi si bur ba nga xam khalaq mu bind as-samani jurum ñaar wal arda ak sufi juróom-ñaar fi sittati ayyaamin ci juróom ci juróom benni fa wa kana nek na boba arsu arsa arasam ga alal mai ca ndokh ma boba aras ah, ah, ndox la li yablu ci déggin buñ ko toppee day xóot de li yabluwakum yàlla nee na gannaaw ga laa bind nag maa bind ngir naa nattu ayukum ana kan ci yéen ahsan moo gën a rafet amalan jëf su ko defee kan moo gën a mën a topp yàlla yéen dama koy nattu ci yéen pour yéen ngeen xam ko waaye yàlla nattuwul kenn pour moom ci boppam mu xam li nga nekk wala in xulta giñ naa ni buñ la waxee yow yonent bi ni in na innakum naka yéen ñi mu baasoona dañ leen di dekkal danañ leen dekkal min baadel mawti gannaaw ba ngeen deexee xam nga buñ leen waxee lii la yàqooloon na giñ naa ni dana wax la yàqoolan na giñ naa ni dana wax àll siina gaañ a nga xam ne kafaroo ñoo weddi daani inhaasa déet alquran ji wax ni dekki am na déet waxam jooji illa sihrun lu dul njabar la rek ak njabar la mu biinun guddi aji biir jig njabar wala ñu ne in haasa illa kon dañ naan in haasa déet yonenti bii di wax naan dekk am na illa saahirun lu am njabar la rek mu biinun guddi aji leer njabar in haasa illa sihrun mu biin ci alquran ja إن هذا إلا ساحر مبين تينانت <laughs> ولين آخرنا جنان ديم يخنم أنهم تنيوم نيوم يويد ديكي بني يخي تنيوم على سابن بغل ما إلا أمتين بجي وقتو بجي أي إر ما دودة يدي ينو لم دفع أم تابو ورا جوت نيوار لينم بغل سنين يخي بو بو بو لا يقولن دنا وخ وخي نما يحبسوه لن مو تيم مي dañ naan ah xam nga mbugal mi dafa am date bu leen yàlla war a mbugal suñu toogee wax li yonente bi gëmuñu dara ba pare ñu toog naa ah yonente bi yéen a ngi seen waa ji noonu mbugal dana wàcc ci ñun ah, ñun dañoo ngi dem marché ñoo ngi dem Grand Yoff ñoo ngi dem Louga ñoo ngi dem Paal ñoo ngi dem Ndar ñoo ngi dem fu ne ah waaw ñun dañoo ngi dox suñuy soxla ana lu tee mbugal mu wàcc na yàlla da leen di toon naan alaa ni ne yow ma yaatiihim bis bi mbugal mi di wàcc si ñoom lay sa masroofan du nekk di mbugal mu ñu mën a jañ ba ba teem wàcc seen kaw lay sa masroofan déet muy lu ñu jañ anhum mu teggi leen te waxaaqa dana wàcc bihim ci ñoom muy payu maakaanu la nga xam nekkoon nañ station na doon yëjji bihii ca loole te mooy dikku mbugal ma wala in asax naa gin naa ne bu ñu mosalee ñun yàlla al insaana yéefër rahmatan xéewal rahmatan koom rahmatan wér gi yaram rahmatan fajug aajo min naa gu tukkee ci ñun summa topp nasaanaa ñu rocci xéewal ga minu ci yëge jële ko ca waajooju innaw naka moom waaju la yawoo sum xaddi lay doon ci yërme nag sunu borom kafuurun day weddi waakoon lay doon ci xéewal yam ko defaloon su ko yàlla joxee xéewal jox ko wér gi ba yàgg loolu rocc ko rek day saali moo tax kuy ñàkk di saali sa ngëm kuy feebar di saali sa ngëm kuy nekk ci ay jafe-jafe di saalit sa ngëm matul waaw matul wala yi naa sax naahu giñ naa buñ ko mosalee moom waajooju di wet yàlla buñ ko mosalee at ba tey na amaa xéewal ya baad ak dara gannaaw ñag lor googee masatu goo xam ne laaloon na ko suñ ko joxee xéwal gannaaw ba mu amee lor la yàqooloon day wax ni ah saa ba dem na a sa yaatu musiba ani teggi ma inna woo naka kooku daal dëgg-dëgg la farihun bégaa koon la fa xóorun puukarewaa la yàlla nee na moom ñoom noonu lañ comporté wa am na ñoo xam ni suñu amee xéewal commencé bàkku saa baay dani ma woon doom ma ne ko waaw mun ma regg bajantu goo gis ak xiif jooy la ñëw naa fii dégg sëñ Maodo di wax ni moom itam di ko wax ni alaaji Racine da ko daan wax waaye li am solo mooy am na ñoo xam ni koom yëngalu leen ñàkk koom yëngalu leen feebar yëngalu leen wér yëngalu leen waaw ah. na ndare gaa ña nga sawaroo ñooy muñkati lor ya waameloo ñu dëkkee jëfe asaaliyaati farataak sunna xéewale bu ñëwee bu lor ya ñëwee dañ koy muñ bu xéewale ñëwee du tee topp yàlla koo gis bu xéewal ñëwee mu bañantu bu topp yàlla jotee dootu ko tal koo gis bu ñàkkee muñ ko bu xéewal ñëwee du ko tee topp yàlla uulaay ka yooyu le gaay nga xam ne ay muñkat lañ duñu ay encaissé waa koonu xéewal lañu ci lu dul bajantoog wanewu uulaay ka yooyu le gaay lahum ñeel na leen maafiratun ak njëggal wa ajurun akuk pay kabiirun gu rëy lool te mooy àjjana falaa la ka amaanalee yow yenente bi léeg-léeg ngay bàyyi ba adamaa leen laan yuuxaa wax yow na ileeka ci yow doo leen ko wax ndax bañ ñu doya dil la waaye loolu bu ko yàlla waxee ñun lay wax de waaye waxul yonent bi wa daayiqun te aji xat la aji tiisu la sadru ko sa dënn bihii ca loolee ñu lay xaw a xatal an yàqooloo lan moo diis ci yow an yàqooloo mooy bu ñu mooy bu ñu dee wax naan lawlaa un si la ana lu tee ñu wàccee yonent bi nee na yàllaa ko yónni ana lu teree ñu wàcce kanzun ndàmb kanzun ay mangase ali ci aw jaa wala dikk sax maa wa ànd ak moom malakul malaaka mu koy seede bu yonent bi ne yonent la malaaka mi ni temm taxaw ci kanam ni maa ko fekke ba ko yàlla yónni yonent la waaw moom léeg-léeg yamuru shahrun awi shahraani min zamanin walan taral aynu fil abyaati min adami in dem yàgg dem ba yàgg mu ni innal xada wa achal haadi ala dafafin ay kasratil ay di lam yuusaf mina sa ami waaye xoolal arrièral tuuti dañu yàmmuru shahrun benn nitu yàlla bu mag moo ko wax sunu nit yàlla bu mag boobi nitu yàlla yi Sénégal yépp sunuy nitu yàlla lañ mhm. boo ci bàyyee benn nitu yàlla ngir sa nitu yàlla rek sa nit yàlla ba nga bàyyi dootu la nitoo moom ah. Ah. ca gannaaw laa soxla yeneen bi demoon na ba nga xam ni su daan julli da daan takk ndiggam ba mu dang mu jël ay xeer roof ko ca kaala gi ndax xiif da koy takk ay xeer ba mu dëgër pour mën a kàbbar mën a jaamu yàlla am deux mois cin du tàkk këram waañ wi dara du fi tàkk buñ lekkee tàndarma ay doomi tàndarma la ñuy añe wala ñu reere ko naan tuuti ndox leneen amu fa léeg-léeg bilaal bokk dara ci mbagga ci mboq ci ci poqataanam fekk yonent bi fa mu nekk rek lu mel na tuuti foñse lu mel na tuuti nangam ndàngam tuuti ay seel toppatoo ko rek fekk fa rasulullah nekk rek mu jox ko ko bu ñamee loola lay ñam waaye déggal la ca nitu yàlla ba teg nee na lool nag maa xat kaana min yutun nee na loolu lépp nag ñàkk ko ñàkk ko taxul maanaam ñàkk na ko amu ko ca këram kenn gisu ko fa waaye nag du ñàkk koo bañ a am moo waral lool mën na koo am ci segoon ndax bu leen fàtte ni muhammadul buusiiri nee na wa raawadathul jibaalu summu min dahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami ndax yenente bi dafa toog ba yàgg jibril ni jaas ci kanamam ni rasulullah yàlla mi ngi lay nuyu mu ni ko maa ngi koy fay mu ni ko nee na soo bëggee doj yi ci nekk ci màkk yépp mu soppil la ko ay wurus ak xaalis ak jamaak or nga toj yépp sol ko ci magasin yi ba mu fees lépp di sa alal mu ne ko waaw boo demee nga waxal ma yàlla yow jibril ni ko ndax xéewal googu day continuer dee ca dul topp damay continuer rekk walla boog day mas a jeex mu dem wax ak yàlla yàlla ne ah boo demee nga ne yonente bi nag xéewal yooyu lu mu mën a toll lu mu rëy rëy nag ah faatoo ci topp na day jeex yonente bi ne boo demee nga nuyul ma ko tani ko soxlawuma ci dara ci yooyu ndax adduniyaa daaru man laa daara lahu wa maalu man laa maala lahu ma man laa aqla lahu su fekkee juumuma àddina këru ko amul kër la su dee man juumuma ci nii ma ko wax alalu ku amul alal la ku amul xel yaa fi dajale ku amul xel rek yaa fi dajale ah. léegi nag yeneen bi ñàkkam googu nag am na ñu ne bi muy faatu sax mbubbam mu ngi ci tayle mbubbam mi ngi ci tayle léegi nag xam nga lan la ñuy xàmmee nitu yàlla yi nit ñi lan la ñuy jàppee nitu yàlla yi ku la romboon tey fi tey këram nekk ay sàkket wala këram mel na daal sunu kër yii mu romb la ñaan waa ji yuu ak a bare xam-xam danga naan xamul dara xaa demoo këram mm-hmm. xamul dara ñaari néegi ñax a nekk fee benn pantere la fa tabax fukki ni tey bokk bennum néeg naa yóbbu dara xamul dara waaw bu fekkee dafa am lu mu donn ci xéewal yi yàlla defaloon yonent bi ci gëm gi yonent bi gëmoon bu dee dafa am tuuti lu mu ca donn nag ñun dey yàgg nanoo toog ci kanamu mag ñi ñuy wax ñuy wax di wane loo xam ne ñoom suñu bëggoon a suñu bëggoon àddina daañu ko am à cent pour cent ñoom ñun ñii ñoom àddina dañ koo am ba pare dëddu ko dañ ko am ba pare dëddu ko bokkute kii àddina mënu koo am mu dëddu ko kooku dëdduwu ko àddinaa ko wan gannaaw waaye nag mag yàlla dénk nañ ay mag yoo xam ne jekku nañu àddina lool macha allah waaye nag àllaaxira lañu bàyyi xel moo tax doxaluñ ko hmm. àllaaxira la ñu bàyyi xel moo tax doxaluñ ko léegi nag yéefari ni yonent bi ña ngay waxtaan ci seen biir ndaan lawlaa unsila alayhi kanzun moo analu yàlla wàcce ci ma magasin te xamuñu ni kanzu dong mooy secret ba kanzu 77 la huwallahu 77 la 77 di secret bi gaa ñi jël ko tubaab yi ñoom xam nañ ko de tubaab yi xam na nu ko de ñun na xaw ma xam nañ koom déet gaa yi ne nañ chiffre amul ma leen chiffre am na de alxuraan kenn du ko chiffré ma ni déet daañ ko chiffré ndax alxuraan lépp ay chiffre lépp ay chiffre kan su ndeke ñoom la ñuy wax sax ñu nga yeeyaale seen bopp ca biir wax ca Mm-hmm. ana lu tee yàlla wàccee ci moom magasin yu muy tijji di tëj ñàkkam gi kay bu doon yàlla ko yónni kon kon mu jog ci aw jaa wala dikk maa ànd ak moom malakun malaaka yàlla daa ni mel na yonente bi dañ koo tomp tontuloo ni innama anta yow xamal ni yow yonente bi yow yow nasirun waaraate kon nga pas kon nga rek ci ñoom ñi gëmul waaye wallaahu yàlla nag wakiilun aji wattu la aji warlu la ala kulli shay'in ci lépp lu mën a doon am yàqooloon wala ndax ñoom dañuy wax ñoom yéefar yi naan alquran ji yonent bi di wax iftaraahu fàggul na ko boppam kenn fàgguwu ko moo ko waxal boppam waaye naan ci yàlla la jóge ci nangam na loolu amul moo ko waxal boppam yàlla ni yonent bi comme noonu la xulwu nee leen comme yow yaa ko wax faatoo nañu indi bi asri suwarin ci fukki saar mislihi yoo xam ni benn dana ca nuroog benn ci asaare alxuraan ci fasaaxa beeg balaaxa beeg badiixa beeg yépp nag nañ ko indi muftarayaatin mbirum nekkam muy lu ñu fortu ñoom ay arab lañu di te ñoom ñu amoon fasaaxa lañ ñoom yéefar yi wanoon ganaaw yonent bi am fasaaxa tax yonent bi alquran di wàcc ci moom muy wax ñoom ñoom alquran ñuy dëgëranteeg moom bopp di ko tontu loolu dimension intellectuelle la seen dimension xel la moo taxoon ñu mën a résister wu dafa fekk alxuraan xel jëmu ci xalaat jëmu ci loo am am xel soo ko kontaree mu daaneel loo rëy rëyu xol boo ko kontaree mu daaneel ndax waxu sunu borom yàlla ay arab ngeen te ay fosaxaa u ngeen làkk leen lu mel na li mu làkk waddoo sàkku sax ci làkk gi leen man istataatum ku leen neex min dooni laayi ta du yàlla in kuntum ndem nekk ngeen saadiqina di wax dëgg fa in lam yastajiboo ña ngeen di woo pour ñu dimbali leen bu ñu ñëw làkkum ñee leen fa alamoo na ngeen xam rek ni inamaa xam leen ni on si la wàcceef na xa alxuraan ji bi elmillaay ci xamuk sunu borom su ngeen ko mënul mënu mënu leen a làkk lu mel na alxuraan mënu leen a indi ku leen làkkalee lu mel na alxuraan munu leena jaar fenn ba indi lenn lenn benn aya bu nuroog aya alquran ci safka ak ci ci ci ci ci ak ci lambi xewal ak ci wax ju rëy munu leen ko saxa a indi su ngeen deme ba xamni ni munta nek xam leen rek kon ci deug deug alquran yalla ko indi wa an la ilaha illa wa an naka lu am ba des dal li mbir tey mbir wa an alquran ji naka yalla mi la ilaha amul ben buur bu yee ñu jaamu ko illaa huwa kudul moom yàlla fahal antum muslimuuna ana lu leen teree wamatu man kaana ku nekk yuridu di namm alxayaata dund ga adduniyaa ga di jege jeex wa zinataha ak taaram ga tax nga nuur ci bàkkaar ci bokkaale tax di nga nuur ci mooy yàlla nu af fi jeef na fay ilayhim ci ñoom ñooñu amaalum seen jëf yi fii haa ci biir àddina da ngay sarxe déglul rek da sarxe ngir am àddina yàlla dana nangu sarax ba jox la ca àddina dangay ngay jokk bokk ngir am àddina yàlla dana nangu jokk bokk jooju fiyaa ci àddina ja mu fay la ko wërsëgal la ko ngir àddina waaye waxum mbir moom ñoom fiyaa ci biir àddina laayab laayu xasoona déeful wàññi seen wërsëg dara dara dara dara li nga def ci lu baax lépp pour sàkku àddinaa tax kon yow mi sarxe fukki mburu yeeg benn ak sondeel yi ak ak ak xar yi ngay rey te jaamoo ko yàlla sarax dañ ko yéene jaamoo ko yàlla waaye yow mi def loolu ngir am àddina yàlla nee na mën naa la cee fekk jox la àddina da ngay sàkku ba mu mat sëkk waaye ulaayka yooyu la gaa yi joxe def lu baax pour am àddina yàlla ne naa li jox àddina waaye euh, ulaayka yooyu la gaa yi allazina gaañ a nga xam ne lay sa lahum déet di leen ñeel lay sa lahum di leen ñeel fi laaxirat ci àlaaxira ñoom ñooñu ca lañ bokk ñoom ñooñu ulaayka yooyu la gaa àlla siina mooy ña nga lay saloom déet di leen ñeel fi ci àllaaxira ilan naaru lu dul safara ñoom ñi ma defal loolu nag sarax yeeg jokk bokk geeg dox lu baax leeg wax ko dara taxul lu àddina rek yàlla ne naa leen jox àddina ba mu mat sëkk waaye àllaaxira benn place lan fa am muy safara benn néeg lan fa am muy safara genn lekk lan fa am muy muy lekk bu nekk safara wa habita te yàqu na maa la xam ne sanoo liggéeyoon nañu ko fiyaa ci àddina ji lañu liggéeyoon ci àddina ci àllaaxira pour àllaaxira loola duñ ca am dara duñ ca jot dara ko wa baatinu aj yàqu la maa la nga xam ne kaanoo nekkoon nañu yaamaloona duñ ko jëf mu dellu di wax ak yeneen wax di gën a leeral ni yàlla moo yónni yonente bi yàllaa ko yónni doonte lee ñoom ñi ngi contre loolu avant man moo ndax yonente ba nga xam kaana dafa nekk ala bayinatin ci yoon wu leer nañ min rabbi gu tukkee ci boroom mu yonent bi ak ñi gëm wala muy alxuraan wayat loowu te topp na ko ca yoon wu leer wow shaahidun aji seede di ko dëggalal muy jibril minhu kookee koy dëggalal tukkee ci yàlla wa min lii am na lu ko dëggaloon la jiitu alxuraan moom te la dëggaloon alxuraan awaayu muhammad di ñëw ak alxuraan kitaabu Muusa mooy téere yonent yàlla Muusa boobu muy tawraan imaaman wa rahmatan mbirum nekkam muy njiit wa rahmatan te yërmande ulaayka yooyu la gaa yoominuuna ñoom daañu gëm daañu dëggal bii ci alquran waman yakfur ku weddi bii ci alquran minal asaabi te bokk ci kuréel yéefar yooyu nga weddi alquran weddi yonente bi kooku fa naaru safara mawiduhu mooy ràndiwu ba yàlla di taseeg moom falaa tàkku bul nekk yow rasulullahi waaye nag ñun lay wax fii miliyatin di sikki sàkk minu ci alquran in yàlla bu ko waxee da koy encouragé waaye xam na ni yonent bi sikki sàkkul ci alquran mu ngi mel na nga daani ah sa waay yaa ngi ci yaa ngi ci tool yi bay nga ni maa ngi ci tool yi bay da nga ni bayal tool yi de kii góorgóorlu ki la naan bayal tool yi te fekk la ci tool yi ñaq yu wër la xam nga ni moos dalay soññ ak bañ nga wàcc te wàcc jotul waaye xam na ni yaa ngi bay noonu rek la waxee moo tax mu ni bul nekk ci sikki sàkka innawoo naka ma alxuraan ji alxaqu mooy dëgg ga min rabbika bu tukkee ca sa borom ba walakin li fi nekk na ak saran naasi ñu gën a bëri ci nit ñi ñoom laa yuminoo duñ gëm ne alxuraan ci yàlla la jóge wa man aslamu kenn dàquta tooñ mi man ca waajangan iftara dafa duutal dafa duudal dafa sosal alkasiban aw nar alalaay mu gàcc ko ci kaw yàlla ulaayka yooyu la gaay yora doona def na gaaralir allah rabbin seen borom wa yaqulu daal di wax al ashadu seede yi mooy malaaka yi ne haulaay ñii gaay allah siina mooy gaay ña nga xam ni kazaboo weddi woon nañu ala rabbihim ci seen borom yàlla ne allah dama ne laanatullaahi sorek gërmën ak sunu borom keroog ala zalimina dana wàcc ci way bokkaale ñi te ñooñu du ñenn lu dul si ne mooy gaay ña nga xam ni yasuddoona dañuy wëngeeñu dañuy dëddu dëdduloo nit ñi an sabilillahi walif jaar ci yoonu yàlla waya ba xoon a ñuy sàkku ca yoonu yàlla iwajan ay dëng-dëng waxum ta mbir moom ñoom kaafiroona ñuy way weddi bil aaxirat ci àlaaxira waxum ñoom kaafiroona way weddi nañ bil ci àlaaxira muy ni tàkkiit ni ñoom hum ñoom laa wax ulaayka yooyu la gaay lam yàkkoonoo duñu nekk mukk du yàgg mukk ba ñu nekk moo ji si na di mën a raw sunu borom fil àddi ci suuf sii mun ñoo fexe ba yàlla du leen def li mu leen bëgg a def wa maa kaana du nekk itam lahum ñeel leen min awliyaa kenn ku leen di fekk ci mbugalum sunu borom min dooni laay ku dul sunu borom keroog ñoom ñu bon ñooñu weddikatu yàlla yooyu weddikatu alquran yooyu weddikatu yonent yooyu yu daafu def na fulal al asaabu mbugal ma lahum ñeel leen ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne nekkoon nekkoon ñu nekkuñu woon maakaanu nekkuñu woon ñoom yestati ona doñ attan doon attan a déglu dégg ga te di ko dégg wa maakaanu nekkuñu woon yëpp siroona doon xool dëgg ga te di ko gis wulaayika yooyu la gaay àll mooy ña nga xam xasiroo perte nañu te pertal nañu itam an sam seen jëmmi bopp seen jëmmi bopp ñooy ñoom waaye day dëgëral wax ja wa daal sooy na wa daal la na anhum teggi leen maa la nga xam kaanoo nekkoon nañ yaftaroona doon ko fortu naan dañuy bokkaaleeg seen boroom ëllëg keroog bu yowmal xiyaamee bu leen yàlla dee lakk ñu gis dara lu tee yàlla lakk leen laa amul benn sikki sàkk ne annum naka ñoom hum ñoom ñooñu laay wax al axsaroona ñoom rekk ñooy ña perte ña fi laaxira ci àlaaxira mu pare ci ñooñu dugg ci ñu gëm ñi daan ina lësina naka gaaña nga xam ne gëm nañu wa amiloo ñu jëfe a saalihaati farataak sunna wa axbatoo ñu toroxlu ilaa rabbihim ci seen boroom ulaayka yooyu la gaay dëgg dëgg dëgg asaabul jannati ñooy waa àjjana hum ñoom ñooñu xaalidoona way béel lañu way sax dàkk lañu fiyaa ci biir àjjana ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla di jëfe farataak sunna di toroxlu seen boroom ñooñu ñooy ñi dëkkee àjjana mu commencé nag din bëgg noo leeral ci misaal jullit bi gëm yàlla bay dëkk àjjana ak yéefar bi weddi yàlla ba dëkk safara mu koy leeral naan masalul fariqayn misaalum ñaari kuréel yooyu di yéefar boobu ak jullit boobu ni ma la ko mën a misaale kal ama day mel na gumba wal asami ak aji tëx ja mooy misaalum yéefar wal basiiru ak aji gis jële wa samiu ak aji dégg jële mooy misaalum jullit ñi kal ama wal asami kal ama day mel na rekk ñaari kuréel yooyu day mel na gumbaka ba pare tëx kooku mooy yéefar ba ndax gumba na ndax du gis du xool dëgg ba gisul dëgg wal asami tëx na ndax du déglu dëgg ba dëgg ndax kooku mën naa yam ak wal basiiri ak aji gis ja nga xam ne day gisu dëgg day xoolu dëgg tey gis dëgg wa ak aji déglu jooje nga xam ne day déglu dëgg tey déggu dëgg yàlla ne ne hal ya sawiyaani ndax daañu yam mooy déedéet duñu yem mukk masan ci misaal ñaar ñooñu duñu yem afa laa na ana lu leen tee waaru fàttaliku ci seen borom lu leen tee waaru mu jóge fa nag commencé di leeral yonent yi di wax seen histoire ñeen nett yonent lay wax yenn nat ci seen histoire daani wala mu commencé noox daani wala xadd wallahi dëgg arsalnaa yónnee woon nanu nun yàlla yónni woon nanu nun yàlla nooxan yonent yàlla noox ilaa xaw mii ca nitam ña ni ko boo demee ni leen ànni naka man nee leen man noo nasiirun waaraakoon laa xuppekat laa ci safara ci ñi wedd yàlla mu biinun biir laakum ñeen leen te di wax an mooy laa taabudoo bu leen wéetal illallah ku dul yàlla indi naka man noox axaafu ragal naa aleykum ci ñu mbug aleykum ci yéen asaaba yawmin mbugalum bés alimin bu di bu ñu metti tal ci bu ngeen jaamuwul wéetal yàlla noox wax na loolu ba taay wax na ko dañ ko daan jàpp dóor ko ba defee ni dee tëj ko ci benn place ñu jekk ba ak ñu gisaat ko ñun xool leen suñu góor gi rek xool leen sunu góor gi fa qaala daal di tontu almala u mbooloo ma almala kàngam ya allasiina ña nga xam ne kafaroo weddi nañu min xawmi te ñu bokk ci ay nitam bu noo waxee ba bàyyi xam nga lu ñu koy tontoo maanaraaka ñun daal gisuñu la illaa basaran lu dul ngay mbindéef mislaha bu mel na ñun rek gis nga lii ñu koy tontoo ah mislana illaa basaran mislana maa naraaka gisuñu la illaa basaran lu dul ngay mbindéef rek mislanaa bu mel na ñun yaa ñun ñun dañuy lekk ngay lekk ñuy naan ngay naan ñuy sol yére ngay sol yére ñuy dem marché gannaaw raay nga fay dem noonu la gisuñu benn ngëneel bu war a nekk ci yow bu war a tax nga xëy suba ni temm ci suñu kanam ni ab yonent nga lii ñuy wax ñii yent yàlla noox lii tax ñu xam nitu yàlla lii tee ñu xam nitu yàlla ci la bokk lii ñu xool ba xamuñu ni yonente la ba dëggaluñ ko lii tee ñu xam nitu yàlla lii ci la bokk nitu yàlla boo ne waaw xanaa du diw ah eh, diw maa ngi ñoo moom a doon futbalandoo fii aka mënoon a bëre waaw ca jamono yooya ngay wax aka mënoon a fecc ca jamono yooya ngay wax aka mënu na couper té jamono yoy ngay wax mas na ko daan ci lamb ja tay daan na la ci lamb ji daan na la ci jenen lamb waaw yoy nak soko ko ci bu jëk ba do xam nitu yàlla boobu loolu moo tee ñu xam no ndax dañ koy manaraka illa basara mislana naa fo ñu ko manaraka gisunu la itabaka kenn di la top illa la ndare gañe xani hum ñom arasiluna ñoy baadiya raali baadiya raayi <laughs> ñoo ñàkki teggin waaw ah. ñooy naxa naxa yi naxa yi araasilu naa yées si ñun ñi nga xam ne baadiya raayi way naxa naxay xel lañu yow daal ñii rek lañu gis ñu topp la waaye gisaguñu benn noobal bu bare alal bu nangam nangam bu la topp yow daal ñu jàkk fayda rekk lay farakaan ñoom loolu lañ jàpp ba tey li tee nga xam nitu yàlla loolu ci la bokk entourage am bi koy wër entourage bi koy wër léeg-léeg dañu àbbanti ñaari téeméer pour dépassoo bu mu la nax ci loolu léeg sëriñ bi àbbu leen ñaari mu dépassoo bu mu la nax foofu de waaw bu mu la nax foofu de bu mu foofu de ñoom lii lañ ko wax ni lañ ñu ko ñii rekk la topp su doon dañ laa yónni yàllaa la yónni dana la boole ponkal wamaa naraa gisuñu làkkum ñeel leen min fadalin ci benn ngëneel ale naa ci sunu kaw hmm? bal li fi nekk sax de ñun noox dana leen tontu par benn ba mu mat ñun nasu nukum jortoo nan leen sax day ni yéen sax day kaasibiina da ngeen di wax la ca gannaaw dëgg ñoom loolu lañ ko wax xaala daal di tontu moom noonu yaa xaw yéen samay nit araayatum wax leen ma ni in kuntu ndeem nekk naa laa ne baynatin ci leeral gu leer nañ yoon wu leer nañ mi rabbi gu tukkee sama borom wa aataani mu jox ma rahmatan ak nuboowa mi neen di gu jóge ci moom waaye nag fa ummiyat gumbaloof na aleykum ci yéen su loolu amee itam ñu gumbaloo leen ba yéen mënu leen a gis lool waaw anul jim kumooxaa mu ndax le ma leen di forcer sama wax jii pour ngeen nangu wa antum te mbir mum yéen kaarihuuna ngeen di way sib ngeen di way bañ laxaa ñeel ay kay kaawteef yi ma leen di wax nangu leen a gëm seen borom wayaa xaw mi ma ngay continuer wax yéen sama nit moo ne man day laa as alukum laaju ma leen allihi ci jotal gii ma leen di jotal yónnentab sunu borom laaju ma leen ci maalan benn alal <laughs> ku lay woo di la yóbbu ci yàlla di la laaj alal moom booy wa bañ faa guddee bokkut ak nag ki lay laaj alal ngeen ngir ngeen ànd ci yàlla laaj alal ngir ngeen ah, defar jàkka ji da laaj alal ngir ngeen dajale dimbali waa daayire bi da laaj alal ngir dimbali néew ji doole yi moom daal moom bu muy boppam rek bu la laajee ngir boppam te teg ko ca wilaaya ga rek nekkutu ko mën na laa laaj ndimbal ngir teg ko ci jaam ji mu nekk xam ne jaam day soxla moroomu jaamam mu laaj la ndimbal waaye bañ koo teg ci sëriñ bi nag mhm. koo xam ne loo baaxle mu yóbbu ko te dëkk ci loo bon le dana ko bàyyi yow amu ca soxla loo baaxle rek la yóbbu yaa ko xool rek loo baax la rek mu jël yóbbu dëkk ca loo bon le dana ko bàyyi yow Laju nga xam Laju melin genok pay in ajiria dit sama pay ci woo gi ma leen woo pour yóbbu ci ma am genok pay pay ga nekkul fenn illaa àlallaahi ndaree bu borom Wama ana dit man bitari di lazina may dak gaay nga xane ne dañ ma gëm nee ngeen ñu suufe ñi rekk ñoo ma topp hmm. ah duma leen dàq innahum naka ñoom mu laaq wa rabbim dañuy daje seen borom bu ñu dekkee yàlla fay leen topp giñ ma topp ak gëm giñ ma gëm walakin nii li fi nekk nag man mii noox araakum gis naa leen xaw man ngeen di ay nit tëjji yoo xam ne da ngeen a réere réere seen mujjug mbir xamu leen ni ci alkane ngeen di mujj noonu leen wayaa xaw mi yéen sama nit man ana ci yéen yan suru nii moo may dimbali mina laay ci mbugalum sunu borom mi bu dee ñëw in taratum in taratuhum ndeem dàq naa leen ba yàlla di ma duuma ci loolu anakan mooy ñëw dox sama digg ak sama borom awalaata zàkkaroon ala lu leen teree xelu noo ni leen wala aqul duma wax làkkum ñe ni indi na nekk indi indi nekk na fi man xasaa inu laay màngasey sunu borom yi xam nga ñoom lan boo jooju wax jan la dañ na ko wama nara lakum alayna min fadlin gis nga fi ñu yem ci tontu fi ñu jeexale foofu la noo di tontoo jëm fa tàmbalee woon wax ak moom xaw ma bàyyi ngeen xel ci alxuraan bi ni mu tëddee ñuy déglu daan ci bàyyi xel wama nara lakum alayna min fadlin lañ ko wax gisuñu benn ngëneel boo am ci suñu kaw ba tax ñu war laa topp yoroo dara noox ni leen wala aqulu man waxuma lakum ñeel leen ni indi nekk da man ban xasaa inu laay magasin suñu borom yi waxuma leen ni magasin yàlla yi mi ngi ci man kon bu ma leen ko waxoon su ngeen ñëwee gisu leen ko man ngeen maa weddi mais bi ma leen di woo pour convaincre leen pour ngeen gëm yàlla néewuma leen damaa yor ay millions yu dul jeex kon yow mii dem ci sëriñ bi yàgg ci suufam te amoo dara tax nga yaa ngi dem sëriñ bi néewul woon kaay boo ñëwee am gis nga alxuraan andi na lépp noox ni leen ba tey wala aalamu man xawma alxayba kumpa ñoom nee na ko man omaa naraaka ittabaaka nañ ko waxoon ci gannaaw gisuñu lu dul kenn topp la lu dul ñi nga xam ne ñu ñàkk fayda ñi rek ñoo la topp noo tontu na leen ca bi mu leen ne wala alamul xayba la leen tontu xaw ma kum ba man ba xam ndax ñii dañoo ñàkk fayda wala ñàkkuñu fayda yéen ñi gis lool la ci ñoom yéen yéen a ko ci ñoom waaye man xaw ma kum non len wala aqulu waxuma ni inni naka man malakun malakala yonti yalla no neewu man kat mi ngi len ni neewuma len man malakala. xam nga dañ ko ni ñom ban wax lañ wax mom dañ ko ni wama naraka illa basaran mislana gisunu ci yow ngay dara lu dul mbindeef kese kese kese nga dañuy dem marché nga defa dem ñuy dem gannaaw raay nga defa dem ñuy soli nga de ko sol ñuy lekk ngay lekk ni ñuy def daal ngay def noox ni leen waaw man néewuma leen malaaka laa mu dul def li ngeen def su loon bi ma leen wooyee dama leen ne woon leneen laa kon waaw sëriñ bi dafa bëgg a jommal gaay taalibe yi bu demee ca àll ba rek nekk ak ñoom di wax ak ñoom ba ni ah kon man ngeen a dem kër ga ñibbi boo ñuy wàññiku dem di ñibbi rek sëriñ bi daal di daw teg gi ca xurwa di daw xel yu metti pour bëgg leen a jiitu yi pour bu ñëwee fekk ko fa bu ñëwee fekk ko ci kër ah waaw sëriñ yow foo jaar mu ne ah déedéet yàlla nag yemalewul na mooy lii nag yàlla ma ko may nag ah, xanaa si bi du ko fekke moo tax am na kiimaan yoo xam ne bëgg koo wane dafa lay sonal simpalal rek nga woo nit ñi ci yàlla ku la ci topp topp la ku la ci toppul nga bàyyi ko noonu waaye nit ñi bis buñ la poussé ci yow yaa mën diw yow yaa yaay bënn teen yi yaay yaa yaay yaay bënn forage yi yaay miire armeel yi yaay tabax dëkk bi yow yaay def nangam sëriñ sàngam ba mu fi dafa def nangam kooku yàllaa ko ko may mu man ko yow li la yàlla may nga man ko yem ci te woo ci nit ñi ci ngir yàlla rek ku la ci gëm nga def loolu nga def la nga man noox ni leen man ñu ne ko yow yéen a ni man mbindeef kese la man wala aqul inni malakun di ma néew ma leen Ah, maanaam wala aqulu waxuma ba tey li la si ne ñeel gaaña nga xam ni tas dër yi da ngeen dana dana leen xee dana xeeb ayunukum seen jëmm ya ni lan yu tiyewum du leen jox allaahu yàlla xayran yiw waxuma lool de allaahu yàlla alam moo xam bi ma ca la nga xam ni fii anfusim nekk na ci seen biir xol inni naka man idan su ma leen waxee loolu la mina zaalimiina bokk naa ci way tooñ yàlla ñu daal di xam ni mënuñoo yey noox ndax gis ngeen liñ ko waxoon ci gannaaw bu ngeen xoolee aay yi ñu mujj a jàng tontu na leen bu ci nekk benn par benn ñu xam ne mënuñu ko yey xaalo ñu énervé daal di wax yaa nooxu yow yont yàlla yow noox daal xat ci dëgg-dëgg day jaa daltanaa bare na booy dàggante ñun jaa daltanaa yaa ngi dàggante ñun fa ak sartata bare nga lool ji daala naa sunu dàggante foo tool yaa ngi xuloo ñun di dàggante ñun daal wax ji dañoo soof sax léegi léegi daal fa atinaa indil nu bi maa ci mbugal ma nga xam ni taidunaa yaa ngi nu koy dig in kunta ndeem nekk nga mina saadiqiina bokk ci ñuy wax dëgg ñi léegi mbugal mi ngeen ni bu ñu toppul yàlla da nga wàccee mbugal mi wax ji daal sàppi nañ léegi indil mbugal mi xaala daal di wax moom noonu ne innamaa xamal ni yaatiikum dana leen indil allahu yàlla bii ci mbugal moomee insa a bu ko neexee xam naa ne daal wa maa antum déet yéen bi moo ji ziina ngeen di mën a raw yàlla wala yan fawakum du leen jël mukk nu si sama laabiri gi in aratu ndeem namu naa an an soo ma laabiri làkkum ñii leen wa maa kaana nekkul allahu yàlla yuridu din ta in kaana ndeem nekk na bokk allahu yàlla yuridu di namm an yoox wiyakum ci mu bewloo leen bu leen yàlla naree bewloo ci maanu teem nar leen a duma xam naa ni lii may def du ci dara du ma ci man dara huwa moom yàlla ko mooy seen borom te itam watur jawoona def na delloo leen ilay ci sunu borom sunu borom daa di wax ne am na ndax dañuy wax ñoom yéefari ni iftaraahu yonent bi moo sos alxuraan kul wax leen ni leen ineftaraytuhu ndeem sos naa alxuraan ci sama waxi bopp faalee kon war na ma wàcc na sama kaw ijraami sama bàkkaaru waa naa man kay bari un aji dañ laa bi maa ca la xani tujjiri muuna yéen a ngi koy bàkkaaru o ooxiye wax yoox na laa ci yonent yàlla noo ne anoo naka moom lan yu mi na du gëm mukk min xaw sa nit ñi illaa man du ka nga xat aamana dafa gëm falaa tartais bul jàq bi maa ca la nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yaf aloona doon ko jëf xam nga nan ngay def was nay liggéeyal alfulka gaal ga bi ayu ni naa ci sunu ndimbal ñun yàlla liggéeyal gaal gi woo wax yi naa ak sunu ndigal walaatu xaatim nii bul ma wax loo nag fi la si yàlla ne ko bul ma wax loo mukk fi la si ne ci gaaña nga xam sa la moo tooñ nan innahum naka ñoom bu ci sax wax mu raxoona dañu leen di labal ñoom mukk ñoom ñëpp wayes naaw ma ngay liggéey mu daarion la indi waaye xoolal sabotage yi ci nara a topp naaw noo liggéey na ma ngay liggéey alfulka gaal ga ma ngi ko yet bokkul la ma marra saa yoo xam ne romb na ale ci noo mala un mbooloo min xam ñu bokk ci nitam ña sa xiroo dañuy tex-texaan di reetaan ci yàlla noo di naan xoola ña wax de xaala ma ngay wax na moom noox di leen tontu naan in tasxaroo ndeem reetaan ngeen min naa ci man mi ñun ñii ah ci yett gi ma yett gaal gi fa in naa naka ñun ñii nasxaru daanu ree min kum ci yéen kama tasxaroo na comme ni nga xam ni noon ngeen nii ree alquran rek mën a làkk lii wa kullama marra ali malaun min qawmi saxiroo minhu qaala in tasxaroo min naa fa inna nasxaru minkum kama tasxaroon yàlla ne waaw fa safa taalamuuna xas ngeen a xam de xas ngeen a xam man anakan yaati dana ko xam ne dana ko dikkal asaabu mbugal boo xam ne yux si dana ko gàccaal wa yexilu tana wàcc alayi ci koom asaabu mbugal muqiim bu sax dàkk ñoom di tax ñu daan ko reetaan dañ daan wokkante buñ ko rombee naan xool leen sunu sunu yonente tey ministre la léegi nag mu yett gaal goo xam ne ñetti téeméeri xasab la ci guddaay nekk juróom fukki xasab ci yaatuwaay nekk fanweeri xasab dégg nga ci kaw ci kawewaay ñu daal di ciy dugg nag ci yenn téere yi waaye xelunte na wàcc alihi asaabun mu xiimun xaataa yi saa jaa wàcc boo ñëw nag amru naa sunu mbir ma tam mooy alag leen xam nga fan la mbir ya tàmbule mooy wa faara dafa fuur ndox ma daay dafa fuur attanuuru fuur ba fuuru mburu ba ca la ndox ma nga nga day tàng di tàkk safaraa nga ca fa la ndox ma fëlli rek jóg nag xam nga ne foofa di tàkk da comme fa la ndox ma génne feneen matut a wax xool naa ñu daal di wax ni yàlla nekk ñu ne ni wax noox ne ko ahmil dugalal fiyaa ci gaal gi min kulli zawjayni ci képp ci bépp ñaari xeet góor jigéen xeet mu ne min kulli zawjayni isnayni xeet bu ne dugal ca ñaar góor ak jigéen wa ahlaka tey alag na alkuna illaa man lu ka nga xam sabaxa jiitu na ali ci moom alxawlu wax ja wa man aamana ku gëm dégg nga wa maa aamana gëmul nag maa fa ànd ak illaa xalilun lu du lim bu néew lim bu néew ñoo gëm ci ñiy ànd ak yàlla noox mu ni nag gaal gaa ngoog xeet wu nekk na nga ca dugal ñaar góor jigéen gëléem gu góor gëléem gu jigéen nag wu góor nag wu jigéen njanaaw bu góor njanaaw bu jigéen nit ku góor nit ku jigéen bépp daal ñaar ñaar ñaar rek wa ahlaka alku na hmm. illaa man sabaxa dare bu ka nga xam jiitu na ali ci moom alxawlu waxam ja waman ak képp koo amana gëm na moom mucc na waaye nag wama amana gëmul maahoo ànd ak noo illaa xalilun lu du lim bu néewa néewa néew néew lim ba sax téere yi wax nan ko waaye comme dafa bareeg werante ñiini lii la ñiini ni laa la te warante ba bare ca lool jarul ñi di ko tudd kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu